seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi déndee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo leen may li ci yéene kaay cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dalal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook Walf Quotidien mi des ci coowal élection présidentielle yi nga xamante ni jamono ji ñuy wax ak yéen commission d'enquête parlementaire ba ñu bëggoon taxawal ci assemblée nationale nag mujjee nañ koo taxawal yéenekaay bi dalal Thierno Alassane Sall mi nga xam ne moo déposé woon recours laa la wax ca conseil constitutionnel ngir ñu càmbaraat candidature Karim Meïssa am moom Thierno Alassane Sall

fenêtre bu mu maye pour ñuy reporter élection rawatina ci jamono bii ñu toll nii jëleekaay bi naan en coowal reportu élection présidentielle yi di ñëw defim toll nii mu ngay gën sérieux tax na Thierno Alassane Sall di wax ne enjeu yi ñu nekk ci réew mi rawatina suñu exploitation pétrole bii contrat yépp bés bu ñu jëlee nguur gi danañ ko xoolaat xoolaat tamit licence de pêche yi lépp la ñuy waat en tout bi xamal nañu ne fi mu nii président PDG groupe Walfadjri moom di fàttali président Macky Sall président yi fi jaaroon yépp te mujjee indil guutan ak seen biir dëkk moom Cheikh Niass di xam la ci biir yéenekaay bi ne président Macky Sall yeboo nga ànd ak sa xel bu la kenn puus nag ba nga dugal réew mi ci guuta lu ko tijjee yéenekaay ne ku wax lii rek wax lee élection présidentielle yi ñu jëm saa yi nu xëyee di gën a gis nag ay dossiers yu bees laa la wax yoo xam ne day wane ay rëq-rëq ca conseil constitutionnel yéenekaay bi nag gannaaw double nationalité wu Karim na beneen candidat boo xamante ni fi mu toll nii laa la wax double nationalité m dafa leer naññi moo di kaaw Rose ni naka la def ba rëcc na conseil constitutionnel fekk na yoo dafa am ñaari nationalité benn bu française ak benn bu sénégalaise lii tax yéenikaay bi ne est-ce sax amul yeneen rëq-rëq laa la wax yoo xam ne am na ci càmbaruk dossier candidat yi ca conseil constitutionnel en tout cas commission d'enquête parlementaire bii nga xamante ni ñoo ko doon sàkku ci assemblée nationale validé nañ ko ba taxawal na commission bi composition bi tamit léegi xam nañ ko ñu nekk su commission ba niki démb lañ na moo ko jiite Lamine bi bëri na coow ndax candidat wu Ousmane Sonko bii di Bassirou Diomaye Faye gannaaw ba ñu ko lànkale ne du am liberté provisoire am na yeneen i coono yoo xamante ni fi mu toll nii ñoo ngi koy teg ci biir kaso ba mu nekk laa la wax fi toll nii pour mu wuyu téléphone sax c'est tout un problème waa coalition Diomaye président di sàkku ci na mu gën a gaawee ñu libéré seen candidat bii di Bassirou Diomaye Faye ndax candidat la comme ñëpp te dafa war a campagne aussi comme candidat Sall nekkoon membre Sénat mu wax xalaatam nag ci double nationalité Rose Wardini bii tey xamle ne jamono bi nga xamante ni candidat yi waroon nañu def recours surtout ci kaaw double nationalité moom Rose Wardini jamono boobu wees na fi mu toll nii étape boobu dépassé nañ ko moom Issa Sall di xamle ci biir yéenikaay bi ne comme que étape boobu nag dépassé nañu ko gisul benn lien boo xamante ni am na ci double nationalité Rose Wardini ak processus électoral bi ndax processus bi nag ay étape la étape xas ba jéggi nag noppi nañ ca yéenikaay bi di laajte est-ce ginnaaw ba mu porté combat wu double nationalité wu Karim Wade lépp yéenekaay bi deesuwaat na ci La Tribune yéenekaay des ci coowal double nationalité yi nga xamante ni fi toll nii laa la wax mu ngi mel ne tulleeg mën la ca conseil constitutionnel yéenekaay bi ne fi toll nii na procureur ci boppam moo war a autosaisiru ci coowal candidat yi ñuy wax ne dañoo am double nationalité et pourtant ba ñu demee ca conseil constitutionnel dañ leen a demandé woon ñu def déclaration sur l'honneur waat ci kanamu conseil constitutionnel na ñoom benn nationalité la ñu am ndekete yoo ñu ci bëri nag am beneen cas ca conseil constitutionnel muy candidat bii di na a tax nag ñu daal di taxaw seetlu laajte ñoo am double nationalité ci candidat yi mbaa amul yeneen i candidat gi ñu doon càmbar seen dossier ak lu ci mënti am moom kaaw Rose Wardini bii na ne conseil constitutionnel am na ay rëq-rëq ci càmbar gi ñu doon càmbar nag dossier candidat yi ba tey yéenikaay bi def taxaw seetlu ci processus bi nga xamante ni fi mu nii laa la wax wax ñëpp xam nañ ne am na ay rëq-rëq incohérence bi nekk ci fichier électoral bi commission d'enquête parlementaire bii ñu taxawal lii yëpp boo ko dajalee tax na yéenekaay bi laajte mbaadu président Macky Sall li nekk ci boppam moo di ñu reporter élection présidentielle yi en li wértéwur moo di candidat yi nga xam ne dañ leen recalé woon nag ci élection présidentielle yi ñoom ñëpp de toll nii dajaloo waat nañu dem ca Nations Unies ak Union européenne xamante ni ñoom candidat yi am nañ ko seen diggante ak Nations Unies ak Union européenne day wane rek ne ñoom parewuñu pour bàyyi ndax li nay rëq-rëq nag ca conseil constitutionnel surtout lu jëm ci côté parrainage bi le point actu def taxaw seetlu tamit ci commission d'enquête parlementaire bii nga xamante ni taxawal nañ ko ci assemblée nationale ngir ñu daal enquête ci ñaari magistrat yi ñuy jiiñ ne dañoo def corruption ba daal di liquider nag candidature du Karim Wade tuuma yi waa PDS teg ci seen ndodd ñi leen ci jàppale dëgg nag moo di waa Benno Bokk Yaakaar tax na jamono ji bii ca biir palais ba la jugee de moom Cheikh Omar Sy ci boppam moo ko dëggal jàpp ne état bu Sénégal gii ñoom ñooy gungee na commission d'enquête parlementaire bi waxuma la dara sax waaye ku gis fast track bi nga xamante ni lañ ko taxawalee ñu war a xam ne mbir yi nag am na objectif bu leer jërikaay bi dañoo xamal ne commission bi moom taxawal nañ ko ba noppi ni ki barki démb lañ ko voté démb ñu daat koy taxawal te ki ko jiite nag moo di président ndax seen candidat bi fi mu toll nii saa nu xëy de muy gën a sori président Macky Sall bi ne téeméeri maire ak ñaar fukk yi nga xamante ne ñoom ñoo parrainé woon Amadou Ba jamono ji ñu toll nii juróom-ñeenti fukk yeeg ñaar bàyyi nañu Amadou Ba dootuñ ko soutenir te ki dëggal li ni mel nag moo di Mame Mbaye Niang bi yemu ca ndaxte mu ngi ñu ne fi mu nii Amadou Ba toogatul laa la wax ak président Macky te ku am seetlu rek xam ne fi mu nii ñoom ñaar ñii ñu ngi gën a lan moo ko wun nag lépp mu ngi ci biir yéenekaay bi 24 heures yéenekaay provisoire am am na yeneen i décision yoo xamante ni fi mu toll nii ñoo ngi koy teg ci ndoddam foofu ca Cap Manuel moo xam lu jëm ci wàllu visite am wooteeg ba ci chambre bi nga xamante ni fa la nekk di fanaan yërekaay bi xamal nañu ne fi toll nii ci surveillance dëgg la nekk Bassirou Diomaye Faye pour mu woote téléphone sax léegi dañ koy génnee chambre am teg ko ci digg kaso ba teg ci di ko surveiller bu dee ay visitam léegi dañ ko limité coalition Diomaye nag libéré nag ci na mu gën a gaawee ngir mu mën a tolloo candidat yépp comme ni ñuy campagne l'observateur des ci manœuvre yi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi koy xambee côté bu nekk pour reporter élection présidentielle yi yéenekaay ñu fi indi crise institutionnelle boo xamante ni bu ñu xam fan lay mujjee te ndaw yi Sénégal duñ ko seetaan conséquences politiques yi mu nar a àndal crise scolaire bi mu nar a àndal alal gu takk gi nga xamante ci société civile bi alerté moo xam Aliou Ndiaye mu Ndiaye Cissé ba ci Birahim Seck li ñu bëgg moo di ñu dem ci élection présidentielle yi ci nii wala ci na manœuvre politique yi nag pour ñu reporter élection présidentielle yi bu ñuy xool ba xool loxoy waa APR mu ca biir Babacar Diagne bu Sénéra def na taxaw seen candidat bii di Bassirou Diomaye Faye lépp ngi ci biir yéenekaay bi yéenekaay bi des ci Coupe d'Afrique des Nations bi ak déclaration bi nga xam ne Krépin Diatta defoon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 pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 match ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñu nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñu nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum